programme boo xam ne programme Thilogne verte la nga xam ne mairie bi si boppam moo ci taxaw euh, programme boobu euh, nga xam ne waa ci Thilogne yëpp dañ ci jàpp euh, pour dëkk bi gën a am ay garab yu bare bare bare bare gis nañu seen taxawaay taxawaay bu am solo la wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee gis pépinière bi xam nañ ne liggéey bu am solo lañ fa def liggéey bi tamit ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy yóbbu ba ci biir école yi gis nga ñu nekk ñoom déjà jëmbat nañu garab ci biir école yi ba pare nag xale yi nekk si biir école yi dañuy ñëw ci tool bi di si jàng lu bëri di ñëw ci pépinière bi di si jàng lu bëri di si jàng ni ñuy jëmbatee garab di si jàng ñuy toppatoo garab loolu tamit am na solo parce que investissement boo xam ne ci dans l'avenir dina dina fay lu bëri waa ci loñ ñoo si njëriñoo parce que ñoom ñëpp dinañu xam njëriñu garab dinañu xam nañu nañ koy toppatoo nuñ koy meññee nuñ koy toppatoo loolu am na solo lool Eh, tey nag eh, xale yi taxaw nañu taxawaay bu rafet mairie bi encadré ñu moo tax ñuy nuyu maire bi ñu nuyu imam bi du nuyu eh, bëpp kilifa diine ak kilifa aada bu fi nekk ñoom ñëpp taxaw nañu chef de village ñoom ñëpp góor ak jigéen wàcc nañ si terrain bi jëmbat nañ ay garab si axe routier bi mais tamit dugg nañu ci kër yi yaakaar naa ne tey ci lañ amul benn kër boo xam ne amul ay garab yoo xam ne c'est des arbres fruitiers dégg naa li ngeen wax si wàllum xëyu ndaw yi Euh, ci wàllum renforcement euh, xëyu ndaw yi yaakaar naa ne maire am na luñ ci jot a waxtaan donc euh, luñ ci jot a waxtaan lu ñu tënk bu soobee yàlla ñu ñun ñu def suñu suñu warugar bu mot sëkk lu ñu war a développé mooy sànq waxtaan nañ ci mooy borom tool yi surtout borom tool yi nekk ci ci ci weetu ci loñ dañoo war a ñu am ñaari programme premier programme ñu war a am ceinture verte d'abord ceinture verte ci loñ dañ ko war a concrétiser te loolu ci pépinière bi lay jóge arbre ombragé yu yu bëri donc loolu foofu si pépinière bi lañu wara war dañ ko dañu wara taxaw ci ci programme boobu campagne hmm. de reboisement lu mu laaj dafa bari dafa laaj organisation dafa laaj méthode dafa laaj préparation mais dafa laaj accompagnement aussi euh préparation moy da ngay waxtan ak nit yi parce que nit yi ñu dëkk ci biir gox bi ñom buñu buñ ci jappul danaka lepp li nga li nga li nga jëmbat mën na am sax ñu bañ mo bañ a dund parce que il faut kenn topato ko té ñom ñoko wara topato ben deuxièmement tamit mairie yi fu mu war a jàppale gabion yi surtout ak chirurgien yi donc moy grillage de protection yoyu do lolu dafa am solo gis nañu nek mairie ci lañ taxaway na taxawaay bu am rafet di sakku ñaan maire yépp ñu def lolu nañu investir ci gabion yi bu ñu investir gabion yi ñun ñu ñew indi plante yi gas ñu and ak xali yu goor ya xali jigen yi ñu dem planter ji ay arbre ku nek fi nga fi nga nek rek sa biir kër ak sa buntu kër bo topoto garab yoyu rek yakarna naa ne dina dina dina dina dina sotti dina mot Música